asalaamaaleykum man la Fatou Ndiaye Sarr jiite nekk présidente Dooleel Jigéen association Dooleel Jigéen. Euh, Adja tey ma gis ngeen dajale tey seen association ma gis ngeen def tey di xarafal xale yi te ren ngeen ko commencé wala kañ ngeen ko commencé. ñun ñu ngi ci suñu édition. Mhm. ndax euh, li tax ma def ko man en présidente association Doolin Jigéen ba pare teg ci nekk conseil municipal département Ndiarème Limamoulaye maa ngi commune Ndiarème euh, boo gisee ñu koy def dama toogoon gis xale yi am na xale yoo xam ne dañu dem ba am ma gis loolu ma daal di waxtaan ak sama waa association ne leen léegi nañ leen def ñun li ñuy cotiser ñu di ko dajale ba mu am at. ñu ñu mën a jël xale yi nga xam ne seen waajur yi amuñu doole ñu di leen xarafal boole ku ay ndimbal suñ ko mën a ame ba ci lu mel ni comme waa ñu ñëw nekk partenaire ak bu jot ñu ñëw jàppale ñu boole ñu lu ñuy cotiser ak alal bu jot dañuy cotiser def suñu kees daf ko épargne di denc ba mu mat un an ñu boole partenaire bi li ñuy jox ñu organiser ko daal di leen nag bépp xale boo xam ne waajuram amul doole ñu xarafal la. bu ñu amee Malikaan sax ñaari mètre booleel la ko ci. waaw ci la ñuy bu ñu suñu première édition def nañu deux ci toppit ñu def deux ba ca topp ñu def trois cent nag ñu ngi def pareeguñu xamaguñu ban nombre la ñuy am. Euh, bu mu seetloo kon dafa mel ni yow tey bu ñu seetloo xam nga xaw naa wàññeeku tuuti. Mm. mooy yéen da ngeen initié woon. da mm. fekk na nit ñi dañ leen cee fekk. d'après information yi waxtu bu ngeen koy defee waxi naan lim taa tamit am na feneen foo xam ne ñu ngi ko fay def loolu day teetal ne maam li ngeen sumboon ñi ngeen ci bëgg fekk si depuis ba ngeen ko dalee def ba dégg lan ngeen ci gis tey kontante rek lañ ci gis parce que loo xam ne yow da nga koy def te yow kenn ko daan def tey nga def ba toog ba ñëpp ñëpp sumbandoo ko di ko def di la toppandoo mbégte nga ci ndax man dama ko daan def daan jël département bi yëpp laa daan jël dama daan dem golf dem jaare sam waxtaan gunaas bu nekk ñu jël fa booleeg li ñu am ci njaareem ba mu nekk 300 personnes ñu defal leen ci département bi tey département bi ñu toogee ba tey jii ñu tombé ñu ñëpp ñuy defandoo golf di def waxtaan di def moo waral mu demee nii mais heure bi da daan fekk fii ñëpp dañuy ñëw fii lañ ko daan defe si man maa ko fi daan def tey nag bu ma ñëpp toppandoo ba di ko def dama ciy sant Euh, léegi yow gannaaw ba nga ko commencé def ba léegi ndax yaa ngi am appui mairie sa mais en tant que conseiller nekk ci ndax yaa ngi gis seen dimbal ñu ngi ñëw wala. dimbal moom xamuma ko ci bu jógee ci mairie su ma waxee dëgg ndax du fen ndax conseil municipal laa du ma fenal su ma ko amoon dama koy wax à part partenaire bii aw ci beneen dimbal ak waa association bi li ñuy cotiser kenn fekkuma ci amul kenn ku ma ci jàppale ku ma mën a wax moo ma booleeg bi ndax sama première édition ñëw na fekk ma sonn lool li mu amoon yëpp ñu dépensé ko ba lépp jeex may ñuy jël suñuy moyens bopp di ko ci def ba koor topp ñu ci Maria xool daal di may yërëm di ma def bu ñu jógee ci lii dinaa am ñu ma la booleel ñoo xam ne dañ la dimbali ci garab yi ba dootoo ko jënd kooku mu booleeg ñii nga xam ne ñooy waa Rotary ñoo may jàppale ci garab yi kon kooku tam maa ngi koy sant ndax tey bu ma jëndul garab wala sept cent mille wala neuf cent mille moom moo tax. kon tey dernier mot lan ngay lan ban appel ngay lancé. appel bi may lancé mooy ñun ñi nga xam ne ay conseil te nekk ak maire nekk ci maire yi ñuy defal population bi lañ koy defal defaluñ ko suñu parce que jëluma sama doom jëluma sama sët ñi ma koy defal xaw leen population njaareem la ak population département bi kon maire yi fi nekk waxuma sunu maire waaye maire yi fi nekk maire yëpp war nañ ci jàpp. ndax defaluma ko sama bopp utuma ci du utuma ci bubb ndax ñu ma koy defal xawma ci kenn ñun association bi dañ koy def rek te yàlla tax ndax association bi kenn ku ne day dem recensé ñu jël ay bàjjalu gox ñu dem recensé bàjjalu gox yi ñuy jël ñuy recensé xamuñu sax ñi ñuy recensé fu ñu dëkk xamuñu seen yaay xamuñu seen at néew gi doole daal lañu wax kon bu ñu jógee di def loolu acte yooyu tey ci biir mairie yi lañ ko waroon defee di génnee moyen di ko ci def bu ñu amee nag benn conseil municipal bu mën a génn amul dara daal taxawal association mën a taxaw dajale euh, géejo njaareem limaamu laay seeni néew gi doole di leen dugal lël di leen defaral xotti leen mbubb defaral leen gratuit di wuti ay partenaires di ci def kon ñun ñooñu ñoom ñoo ci war a jiitu. kàddu gu mujj lay mujj. xanaa di sant yàlla di julli ci yonent bi sant sama ñaari waajur di leen ñaanal yàlla na yàlla yokk leen fa ñu nekk ndax. luma man rek ñom la ak sama borom kër di sant sama borom kër ndax lepp mom la suma ma won ba di ba di ci kër duma ma ma dem tay développement bi may def and ak sama mbolo jigéen ñu may jappalé di sant nak sama biro biro bi surtout ndax sama biro bi andal ma sha allah saboté wuñ ma yàqaluñ ma dara mel ni faat ba saw mooy secrétaire général sha allah je liggéey bu rafet la ciy def

xam naa ba gën a maa jàppale waaye daana dajul suuf ndax tey dafa am dëj ku bokk ci ñun muy suñu benn conseil moom la yaayam wàññeeku mu nekk ca dëj ba waaye moom suñu meer la sama mag la sama lépp la wax dëgg yàlla xam naa tey boo gisee ñëwul dëj ba mu nekk moo tax ñëwul mu yebal Xadijata Sow mii nga xam ne moo jiite santé mu ñëw teewal ko fi macha allah ñoo ngi leen di sant ñooñu ñëpp di baalu ak waa Rotary Club ñom ñima jappalé ma ngi leen di sante ndax bu dul woon ñoom tey du taxaw fi ndax aw luma jëndé garab yi ñoma jappalé di def lancer appel nak ci bép autorité bép ko xamné rek mëna ma jappalé ci kuy liggéey sante ndax li ñaan na yalla di ko def di ko def ba samay doom di ko def wa képp ku ma mën a rek ma ngi lancer appel pelal na la loxo pour affaire bi gëna yok ndax nit ñi dañ ko soxlo waaw maa ngi ñaan yàlla ok jërëjëf jërëjëf